kii yalla ki bu lak sa dina jit la ay ba wàccee qulna ya narakuni ya naara bardan wa salaaman ate señ bi dana don banexu bu ma yegge fofu ba may firaal kon mu ne alhamdulilah ba wa salaaman bu ne woon bardan kenn dootul toggati safara si na nek galas wa mu tek ci na nek jam kon nay lak muy ñor ñuy lekk eh, ah ay bu ñewon eh, bardan wa yem ci safara da koy laal ni fay sedd dafay sedd comme glace yàlla lii dana ko doon yàlla nañ ko fekkee aljana yàlla na dëkkaale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd ko duma di yomb jamono ñu tuumal la ci dafay yomb baayam lay wax maamam lay wax déedéet ma nit yàlla yëpp ñoo yem ci ma baay bi ma jur maam maam bi ko jur nit yàlla ci réew mi ñu ci biti réew awa man ñëpp laay defal ixlaas ñëpp laay defal la ilaha illallah ñëpp lay defal salaatu ala nabi waa kër alhaji Malick ak njabootam képp ku bawoo ci moom waa kër Cheikh al Islam ak képp ku bawoo ci moom waa kër Xaadimu Rasul ak képp ku bawoo ci moom euh, fu ma demee taalibe lay nangoo doon bëgg naa ngeen doon loolu ngir entente ñëw ci l'islam l'islam bëri nañ dem nañ ba un milliard ay huit cent ba ay 900 cent millions waaye seetal coono gi yëpp ci ñun la dañoo bennoowul dañoo bennoowul bu ñu bennoo kenn duñ mun a joxoñ féetoo man nangu naa ko waaye par parloo bëgguma ko jumaa ji li mu yaatu yëpp fenn rek laa ci toog mënuma ko fees nit la ki toog fële munta nekkaat moo toog fii kon foog féete am tijaan la murit la xaadir la yoroo lu baax wala man kenn li ma yor mooy lu yiw lu keneen yor yiw dafa yiwa di loolu fitna lay jur laa nu fariqu bayna ahadin amana rasul bima unzila ilayhi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli lu ñu teqale diggante kenn kon yonent yàlla nuux nii la lii amee ibrahim nii la lii amee sëtam di yaqub teqale nañ ko ak doomam mu tiixlu ko ba ba gumbo ndax yaay bu baaxee bu dundatul rek mbëggeelu bàyyi ci yaay dafay wàcc ci doom moo tax mu bugg yuusuf ndax soxna si dafa doon raxas ay tànkam di ko defaral ay sikkimam di ko lellil ay weyam buy sang mu koy sang lii dafa baax sa jëkkër dugg ci woon bi nga jël njàmpe ragg ko dagg ay weyam defar ay sikkimam lii dafay andi mbëggeel diggante jëkkër ak jabar boo ko ñàkkee rek danga ñàkk lu rëy ba muy matu moom soxna si ba muy matu binyamin ci la ko yàlla moomee muy jihaatu jigéen ñi mbëggeelam wàcc ci yusuf yusuf képp ku yàlla bind moo la dàqoon xanaa muhammad ba ñu muhammad xoos cuub ci sayidna yusuf moo taxoon ngeen doon dégg bàyyi di wax ci buy buy mawlid muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquuti bayna al hajar yal nañ ko yàlla fayal yaa rabbi bu ay doj daje nga sànni jamaa ci seen biir mooy muhammad mhm. mu jooy ba gumba bés bi la ko yàlla delloo bëtam yonent yàlla yuusuf ay doomi baayam jël ko sànni ko ci teen ngir soril ko waaye dafa am lu bambara di wax ah ni leen tori mën a jifi ñankoro kiba ala jama suma yala ni alama janka aba dan aba bin kodado la ah kodado suma lembe fi ñankoro la loolu mooy lan nee nañ boo téye mbott ci ron daal bi ne dem koy soril seddaay nga sànni ko boo moytuwul ci tefes lay tàbbi tefes moo gën a sedd ron daal ñoom dañoo sànni Yuusuf pour mu dee mu alku far mu dem mu nekk rasulu nekk nabiyu nekk malik di buur bu Égypte ne ne leen udxulu dugg si leen ay doomi bàyyi ko sànni woon keroog xiif ñu ngi seen yow kaay leen moo tax sóoratu Yuusuf man ma di ko tuddee euh, sóoratu xuruuj ci la ñu génne ñu tuddaat ko sóoratu duxul ngir Yuusuf ne la udxulu misra dugg leen dëkk bi seen réew xiif bi fa nekk yi ngeen ma sànni woon tey man la jàll jox mbir bu dul man du ngeen lekk tey dugg leen moo tax kañaanante siisante warul doon directeur bi warul doon borom dëkk bi warul doon ministre bi warul doon ambassadeur bi warul doon sëriñ bi warul doon élimaan bi kii lu tax ñu def ko noddukat bi yaay joxe wala yàlla mooy joxe yàlla mooy joxe añaanante bi motu ko yaa ngi añaane nit ëllëg bu dul moom sa benn aajo du faju ëllëg bu moom sa benn aajo du faju kon nañu yéenante jàmm munoo dem kii dem bul dagg ay tànkam ñaanal na dem andi boo lekk boo ca lekkul sa doom lekk ca benn mu jël sa jigéen walla mu jël sa doom wala mu jël sa sët ngeen doon benn boo fàttalee ko démb ga bu doon lu bon nga gàccew kon yusuf alayhi salaam ci bis bi la ko yàlla génne ci biir teen bi ñu ko sànni woon yonte yàlla yunus alayhi salaam ba ko jën ba wonne ba mu ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ci la ko jën bi giqee mu génn ci biir jën boobu la seet leen ki waxoon nag Muusa ca doj ya mooy kan yàlla ci tuuri siiniin ki waxoon nag yuunusa ci biir jën ba ci biir géej gi kan la yàlla la ki waxoon nag muhammad ci kaw aras ne asalaamaaleyka ayyuhan nabi wa rahmatullahi barakatu kan la kon yàlla mooy fépp mooy lépp mooy lu ne loo ne jàkkari yàlla nga gis lii yëpp ay mazahir la kenn nekk ku dul yàlla ci la génne ci biir jën ba moom yonte yàlla yunus damay gàttal ndax dafa am message bu ma bëgg a joxe tey incha allah yonte yàlla ayuba feebar na ba saxe alayhi salaam ba yaram bi yëpp doon sax ba ñu mujj koo génnee dëkk ba jabaram yëpp dem bàyyi ko ba mu des rahmatullahi doomi yonte yàlla yusuf moo tax booy wut booy wut jigéen bu lay sëyal nanga seet bërëb yi ngay jëlee ji jigéen dafay faral di jur ay càmmiñam mhm. jigéen dafay faral di jur ay càmmiñam waaw jigéen yépp dañu demee rahmatullahi demul ngir baayam mooy yonent yàlla yusuf doomu yonent mu bu lay sëyal li ko baayam yebee def say nekk rek demoon na ba dagg ay ay jubbam di ko jaay di ko jëndee lekk di ko andil ayub li xewoon na li xewoon ci jigéen hmm? déedéet kooku du cotte kooku du cotte dépasse kooku du cotte dépasse waaye waaye dowul koo xam ne ku ay loxoom kotom la waaw ba ñaari sax bii sax jëm ci làmmiñam bii sax jëm ci xolam mu siicu yàlla na ko ah ñettit ngay jooy mun ne ko déedéet mu ne ko làmmiñ laa dese bu ma la tuddee xol laa dese bu ma la xalaatee bu ma ko ñàkkee lu ma amati ci yow yàlla ci nii la yàlla dindee feebar bi ci moom mu feeñal ndox ci rëkkab jibril mu naan ci sangu yàlla jox ko risaala nabi la woon yàlla def ko rasul joxaat ko lu ëpp ay njobootam lii xewoon na ci ayuba ci bés bi la xewoon yonent yàlla Muusa alayhi salaam ci bés bii la jëloon yatam dóor géej gi mu xottee ko doon fukki yoon ak ñaar bani Israël daal di ci jaar firaw na ñëw fala keroog mbokk yi firaw na dowul na ñépp ñoo bon déedéet firaw na yi bëri nañu am nañu ne paase nañu ñetti téeméer am na ko bind ne paase na ñeenti téeméer ki bon kay mooy ki dajeg Muusa mooy turam dëgg-dëgg mooy tuut anji xaamuun tuut anj xaamuun turam sax neexul tuut anj xaamuun waye firawna yi aw wala nga ne faraina yi bokoy def pluriel pluriel non la ko tubaab di wax moy jamu da nga ne faraina faraina am am na ko dajaw nak yonti yalla ibrahim moko joxon soxnam soxnaam si ñu tuddee haajara ki meññ yonti yalla ismail am na ku dajawoon nag yonent yàlla yuusuf mu ngi mel ni Sénégal ku falu kajoor ñun la dammel donte tuddoo dammel ku falu barak ku falu eh, waalo ñu ne la barak donte tuddoo barak moo doon seen slogan ku falu ndukkumaan ndukkumaan ñu ne la bëlëb ku falu woon bawol ñu ne la teeñ walla yéen historien yi du noonu wax noonu la kon firawna képp ku fal woon Égypte yaa ngi tudd firawna ku fal woon ci romain yi ñu tudd la kaysar mooy César ku fal woon ci iranien yi ñu tudd la kisra ku fal woon yemen ñu tudd la maarab ku fal woon éthiopie ñu tudd la najaasi boroom xam-xam yi di defee seen gëstu yi Le même Cheikh Anta Diop yàlla na yàlla ko dëkkoon ci tiaytu mo bind téere bobole umamu zinji wal hadara euh, les sociétés et leur civilisation kini nii Firawna lalab la kero la mucc bani Israël duñ ñi ngi duñu ay israélien ñi ay samba boy ñu dajale la Angleterre Angleterre mo leen mo leen fi créé ci 1948 Angleterre moo leen créé waaye ñii duñu ay bani Israël réyaate gu bëri gii nit ku baax du ko def koo bokkalul jubluwaay rek nga nga boom ko di jël avion tiim ay dëkk di leen dóor ay bomb lii ku baax dana ko def ku baax du ko def ñii duñu ay israélien waaye li leen fiy jëlee mi ngi ñëw neexu leen waaye montagne galaas la jant bi koy seeyal mu ngi ci yoon bi te yàlla joxe na ci firnde ci alquran saar yi nga xam ne ñoo tàmbalee sabba sabbal yàlla juróom-ñaari saar la mi ngi tàmbali subhaana allazi asra bi abdi leylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu ki fa yàlla njëkk a ci yonent yi mooy Muusa wa atayna Muusa al kitaab wa jaalna hudan li bani israil saar yi tàmbale subhaanallah naka sabbaha lillahi naka yusabbihu lillahi naka sabbisma rabbika juróom-ñaari saar la yi tàmbale tasbih yi tàmbalee sabbaal bi ci njëkk mooy sóoratu boo ma tudd léegi di sóoratul isra moo tàmbalee subhaana subhaana cosaana mooy sabaha sabbaal na subhaana tuubiru bi bi ci mujj mooy sóoratu laala dafa ne inna haza la fi suufi ula suufi ibrahima muusa ñi dañuy jeex si takk gisoo fan yi seen économie gi réew seen doole réew rës na 30 pour cent ñoom bani israil fan yii de ci semaine bii daanu nañu jëllu goo xam ne seen usines yi seen koom-koom seen milliards yi ñu dencoon ci àddina gi daanu nañu téeméer bu nekk daanu nañu fanweer bu njëkk kenn ñemewu leen woon tudd boo leen tuddee rek Amérique wax te ji àddina gi yëpp mi ngi leen di sàllawlu ba démb démb démb moo ci mujj dëkk bi ñu tuddee Iceland ci Europe mi ngi reconnaître Palestine daal di jàmbu Israël kon ñi dañuy jeex tooñ baaxul bu leen tooñ alam taalam bi anna zulma aaru jazaau zulmi inda allahi naaru tooñ gàcce la payam ëllëg mooy safara yonte yàlla suleymaan ci bis bi baayam di daawuda ci bis bi la ko yàlla nangul ba jox ko tawraata bu doon jàng ñandaaw njanaaw yi duñu mën a lekkati moom la ñuy déglu bu téye woon weñ ak lu mu tàng def koy lem mel ni sondel xanaa kii moo doon tëgg piir <laughs> doomam suleymaan ci bis bi la ko yàlla delloon nguuram gannaaw ba mu ko nangoo ca moom lan moo taxoon ñu nangu nguuram mooy estati estati buñ doon jaamu moo tax man bu ma dégg ay islamologue ci réew mi du ñu islamologue islamologue lañu dañoo log l'islam log lañ ko log waaye ñu ay islamologue naa jegeñ président ma am salaire nangam naa dagana li yàlla araamaloon ngir mu nommé ma may ministre li ñëpp mana man na fexé ba tuddu dara ci nosal sama bakkan tuuti rek na yalla li la wax ngi ñu ne ko président ci dëgg la nek mu def la ngay attaché de cabinet wala ngay directeur de cabinet way estati dafa aram de dëgg la man gis na ay estati ci ay dëkk dëkk julit waaye ci ay dëkk arab arab xeet la arab askan la arab waaso arab jiit la alquran nak bi ilahiyun alquran constitution bu yàlla bind la dangay soppeeku rek nga dekk jullit waaye alquran du soppeeku doon la mukk walan tajla sunnatillahi tabdilan walan tajla sunnatillahi taxwilan taxwil amu ci tabdil amu ci ni meloon la mel rek suleymaan alayhi salaam seydina suleymaan dafa jihaadoon ci benn réew yàlla dogal buur réew ma dee ci biir jihaad bi mu jël doomam àndi ko jël ko muy soxna pour waa réew ma mën a dugg ci diina lii danay am am na kuy jël jabar bërëb fekk lim ca namu mooy jengaloo waa kër ga ñu mën a dugg ci njub ndax fu sa doom nekk foog nga dem fa boo fa demee foog nga gis la fa nag Souleymane soxna si mi ngi géey soxna si du kontaan du bànneexu mi ngi na zëmm rek Souleymane ne ko waaw yow lan moo lay soppi ci li ah mu ne comme yow am nga ay jinne mën nañu tabax lu nekk ah, nañ mu tabax statut bu mel ne sama baay ma di ko xoolee sama baay hmm? ci lañu ñu defaree benn statut ndeke soxna si bu xëyee dana nekk ak ay mbindaanam ay booyam ñu nekk ci wur ñu topp statut googale buy tëdd ngoon mu ñëw tàggu si os statut googale sabab gi moo tax yàlla nangu nguur yonteelu Suleymaan ba mu wëlbateek nekk nappkat ca tefes ga damay gàttal rek ngir dégg ngeen ko ci passé woon li tax ñu nangu nguur ci ku toll ni Suleymaan di aw yonant nga xam ne amoon na tapi tapi ba ruduwaa shahrun warawaa shahrun tapi boo xam ne bu ci toogee dafay naaw li nangu nguuru kooku caaxaan la boo demee Tunisie ci capital bi digg capital bi gis naa fa benn esthétique ñu ngi ko defal Ibnu Khaldun sociologue la woon boo demee Irak dee nga dem ci saari mutanabbi saari mutanabbi ba tey boo demee dem ko fa fekk man maa ko teg sama bët ci Irak ci Bagdad ñu ngi fa def benn esthétique tuddee ko mutanabbi lii du nettali kenn man maa ko gisal sama bopp waaye buñ li ma leen di wax wallahi bu ñu defoon estati ci buntu kaaba gi du tax mu dagan fi yonte yàlla Muhammad gane àddina di siibu abi taalib ñu fa defoon estati du tax mu dagan milliards yi ñu def ci estati yi ana université bi ñu defal leen ay logement ana bourse yi xale yi jàngi ana hôpital yi nit ñi faju ana baadoolo yi ñu lekk te regg ana tël yi ñu defal ko mu baax ah? ana jumaa yi yeggu ñu yeggali leen ana gas ay château def ay maraîchage xale yi semé di ci béy waaye caaxaan di po rek rek waaye ñun ñoo ko jënd de yonte yàlla Muhammad nee na bu ngeen demee ba toppatu leen digal bàyyitu leen tere ma andi leen buur bu soxor bu amul jom moo leen di dóor guddeeg bëccëg te kenn du ci mun dara hmm? làkkat yi nee nañu nga ko réew mu sosoro aa ñokom ko rondo soro loolu la lakkat ah, mbëtt am na jabar moo xam mbëtt la am waaye du nit la am de waaw xeet gu bàyyi yoon rek ku bàyyi yoon la yam ku bàyyi yoon la yam am na yàlla dimbale ñu yaa rabbi nañu fàttaliku bés bi ñuy di ci kaw balankaar ñu jaaxaan ci buntu jàkka ñëpp taxaw ñu ndong ñu ñu jaaxaan wattaqu yawman turjawna fii ila allah bés bi dootoo doon président doo doon ministre doo doon député doo doon ambassadeur doo doon sëriñ waaye ki nga doon Abdullahi rek taalibi bi nga doon xeet mooy def kaalam ñëw tiim la allahuma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika kon dégg nañu lii yonent yàlla Isaa ci bis bi lañ ko bëggoon a daaj ci kurwaa yàlla musal ko aywa kon ci wàllu yonent yi ma yem foofu ndax mi ngi bëgg a naaj insha allah taala ma dikk ci sama ñaareelu thème ñas ñas yàlla na yàlla fay leen njabooti maam alaaji abdoulaye ñas lañu ñu baax euh, seen barke yàlla na wàcc suñu kaw yaa rabbi yaay seydina muhammad ma jaarale ci di sargal njabooti xaadimu rasul gi fi teew njabooti maam alaaji malik gi fi teew njabooti cheikh al islam euh, ca yoof ca medina gunaas fàttewuma kenn maa ngi koy jaaral ci sang yu baax yi ñu jottalil ma kilifa yépp sama ziyaari ci bés gu tedd gi euh, kon ñeent pàcc laa am tey benn bi wéy na mu ñëw ci ñaareel gi ñaareel gi mooy lan mooy bés bi ci la Karbala xewoon Karbala keroog mboolem kuy shérif rey nañ la keroog ba mu des Zeynul Abidin di Ali bun Hussein ak ay bàjjanam lu mel ni Sey Zeynab al Kubra wala Zeynab an Nabawiya astaghfirullah Zeynab an Nabawiya nekkoon di soxna Abdullah bun Jaafar bun Abi Talib keroog ndeysaan jàmb nañu xeetu sayidna muhammad wuruj nañ leen war nañ leen waaye wallahi xasan du daw mukk Ousseynou du daw mukk ah, ñu ne ko waa réew ma jàmb nañ la de Karbala war nañ la wuruj nañ la mu ne du teel dinaa dem de man du ma tufli di mar mukk ndax sama maam daawul sol mbubbu koŋ di xare ji nit ñi dellu mu dellu dafa yooyu rek ba xasan ñëwee ba taxaw jàkkaarloog ñoom eh, yu bari xew fa nettali ko dana daw ci yaram al Ousseynou am ñu ñëw ci moom ne ko tee daw ci la taxawee daal di wax bàkkam gu rëy googale ne bàkkaleel ma man maay kan du man maay doomi Fatimati bint Rasul jigéen bi nga xam ne papam ak yaayam Jibril moo leen andil pom jóge ci aljana ñu lekk ko deret googu moom moo jur Fatima te Fatima man maay doomam tey kan mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du moo jur sama baay sama yaay Muhammad du moom moo doon sëgg ma yëg ci kaw ndiggam muy raam ak man ba kenn su gis ñu bëgg ñoo dàq ne ah ne amal ndaw ku rafet ku ñu yéeg yonent daal ne wa ni'ma raakib ah ki ñu war bu baaxee ki ko war tamit ku baax la ne kooku ndax du man lii dafay am dafay dem nañ ba foog ne booy gàmmoo nga tudd suñu ñii déedéet dafay tax nga nekk tuuti dama tudd ñu xonk ñi la ñoom Ahmed Shawqi ñoom eh, Rasafi ñoom Jabran ah nga tudd ñooñu Jabran Khalil Jabran wala ah dama jubbantu sa yal na yàlla fay la yaa fanaan ngeen ci ba bët seet yal nañ seen jéggi siraat yawmal qiyaamati bu leen nangu mu tëgg yi yi di ko ci def di yàq image yu lislaam déedéet tam xarit nang ci julli woor sangu def tusngal saraxe ci euh, dagg we ziyaara ji boroom xam-xam euh, ziyaara ji ku feebar jàng xul wàllaaw junni yoon hmm? bernde ay gan ah damay dégg benn waay wax na ci mu ne xadis yi yooyu amul sax déedéet loolu du maando euh, waa imam malik ba mu bindee mu wattaa malik radiallahu taala anhu mu ne bu fekkee benn xadis mi ngi ci bu sellul yàlla na téere bi lap mu sànni ko ci géej téere bi dafa tëmb ba bët set na Rashid ne ko dama bugg téere bi ñu yóbbu ko Bagdad gannaaw alquran bu dul bii téere bu ñaan ni ñu xotti ko mu ne ko loolu du maando yonent bi li yàlla amoon ci ay yonent noon la yonent bi am ci ay saxaaba téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni kenn ku nekk dégg nga mbaa nga gis ci yonent bi lu sa morom gisul mbaa dégg ko te kenn ku nekk dellu na réewam kon ma li ma yor rek mooy mooy mbir lu keneen yore du mbir loolu du maan la te lii boo demee ci masalakul ñu naan sëñ Tuba wax na ko sëñ Tuba dina dund bi daa Aliou Harazimi ki doon bindal euh, euh, Mawlana Abil Abbas Ahmed bun Muhammad bun Muhammad bun Muxtaar Asalimi Tijani mu Ahmad Tijaan Chérif yàlla na yàlla tax si barkeem ki ko doon bindal di imam Ali Harazimi bind na li Cheikh Ahmad Tijaan dana dund bidaa sultaanul awliya xutbul aqtaab Cheikh Abdul Qadir Jilani dana dund bidaa nga xam ne mbaggam tenk Seydina Muhammad mi ngi ci sallallahu alayhi wa sallam imam Ghazali jomp ay loxo Muhammad moo nekkoon ci mbaggam Cheikh Abdul Qadir Jilani tenk yonent moo nekkoon ci mbaggam li li ko waral mooy guddi gi yonent bi di rañaan dafa àndoon ak ruuxu mboolem waliw ci ñi judd woon ak ñu judduwul yëpp dafa ànd ak seen ruuxa ba muy muy rañaan yu ja as shidra yu maa yax sa yàlla nangu ko tudd ah yu yax maa yax ñu ne gaaw leen Ousseynou bu Ousseynou bu continuer waxam bi rek léegi ñu fekki ko fekk ndeysaan def nañ ay ay fan lekkuñu def nañ ay fan naanuñu ndox maa ngi ni waaye mënuñoo naan ci la Ousseynou yëkkati benn doomam di Abdoulaye bun Ousseynou ne nag kii xale la perantal la kii xamul dara may leen ko mar sonn na fi mu ko yëkkatee rek benn waaye bu ñu tuddee Hussein Hussein boobu saat la mu sànni fett fett bi bënn xale bi mu ne ko nandal ko ndox maa ngi noonu la deret bi noonu la tuuroo ci kaw kanamu Hasan xale bi faatu mu daal di ko teg ci suuf ci la toogee ferenkulaayu xaar ki Ubeydullahi bun Ziyaad bun Abihi Muawiya moo ko yéegal ci askanu baayam Abu Sufyaan balaa Abu Sufyaan di tuub dafa laaloon luy soppi nit dem dëkk mu ñu tuddee Taayif daje fa ak benn jigéen majusiya bu ñu tuddee Marjaana mu amal ko ca doom boobu mu bañ ko reconnaître moo tax olof naan lu réer ci lu réer ci juddu feeñ ci jikko comme ku bon la lu bon lay mën a def ubaydatu am ñu ko tuddee ubaydullahi bun ziyaad bun abihi mu aawiya moo ko yéegal ci askanu maamam mu bugg a won ci laa bokk kii ak Chammar bun Jawzan ñoom ñoo rey Hussein yàlla tànnal ko bés bi gën a moo tax may dégg sama mbokk chia yi les chiites ñu naan bés bi bésu naqar la bésu tiis la reyu Hassan waaye yàlla dafa Hassan dafa tànnal Hassan yow ma alastu bi rabbikum ngir mu doon saydu suhada ngir mu doon abu suhada jarul loolu nitu yàlla ñu tànnal ko bés yàlla mooy sangu waxambaane aljana kon bés ba li xew xewee bés boobu la ko yàlla di tànnal ngir mu dugg ci aljana ju kaw ga kon chia yi bëri nañu am na zaydiya am na imamiya am na alawiya bëri nañu waaye tey lislaam defa aajowoo ay doomam doon benn par parlo bi jëriñu di xas aboubacar aboubacar dong moo am yàlla na ko yaay sahaaba ah is yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maana moom la yàlla tudd ci alquran may ko saahib moo jël doomam yaay aïcha may ko yonante bi ba yonante ne xuzu min haazil xuzu nisfa diinikum min haazil humayra xonq si lu leen réeri seen diina digg ba tapp ci dënnam la nekk moom ak Aboubacar ñoo tëdd ci benn bàmmeel xasab rek moo dox seen diggante kii dina doon ko yées Seydina Omar ngir teraangam ba yonte yàlla Muhammad faatoo sallallahu alayhi wa sallam yonente bi dafa doon jéggi benn escalier ñaar ñett ñeenteel mu toog ca Aboubacar ne du toog fi yonente bi doon toog dafay jéggi benn ñaar ñetteel bu mu toog ca fi yonente doon teg tànkam fa lay toog Omar ba mu ñëwee fi Aboubacar doon teg tànkam fa lay toog Ousmane ba mu ñëwee moom moo yëkkati escalier bi ci kaw teg ci ay escalier kese moom muy toog ci kese bi keroog ba naa Aliou di wuti Fatima yonent bi di ko may fekk Ousmane wutoon na ko amu ko yonent ne ko loo amu na ko dara mu ne ko sa mbàjjo bi mu ne ko liw ma mu ne ko xanaa sama jaasi ma dem jaay ko ba mu koy jaay Ousmane la dajal mu jënd jaasi ba ne ko lu xew mu ne ko dama bëgg a can Fatimatu te aw ma lu ma ko canee may jaay sama jaasi bi mu ne andi ma jënd ko mu jënd ko bés ba ñuy ceetal faatimatu mu ñëw ne ko jaasi bi laa la jox sa kado sa jaasi bi di siggal lislaam warul génn sa loxo mbañante mi ngi foofu kon ñu ngi xas abu Aboubacar di xas Omar di xas Ousmane yëkkate Ali eh ñoom ñépp ay góor yàlla lañ ñii ñuy xulafaaw rachidin lu ñu def yonante bee ko def sallallahu alayhi wa sallam lu ñu bëgg yonante bi bëgg na ko lu ñu bañ yonante bi bañ na ko sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina Omar moo njëkk atu gàddaay bi hijriya moo tax lële tubaab yee ko moom nasaraani ren mooy deux mille ah, ci juddu Isa Isa le chrétien waaye gàddaay Seydina Muhammad ren mooy junni at ñetti téeméeri at ak fanweeri ak ñett lii Seydina Ousmane moo ko Seydina Omar moo ko feeñal yal na yàlla fay sa turandoo yaa rab ci lii la julli di war a bindee waaye suñu xale yi xamatuñ ko léegi taxaw ci bunt bi ma bañ cee delluwaat nga ne tey ku ko waxul doo añ tey ñu dul añ dana bëri de ah, te ma ko ren mooy junni at ñeenti téeméeri at ak fanweer at ak ñett moo tax atu ren bi at bu kéemtaanu la fanweer ak ñett la jeexee moo tolloog euh, jàlla jàlla mooy màgg na jaa ñett la laam fanweer la fanweer ak ñett at bii ñuy dugg ah na ngeen sabab lu baax de boo sabab loolu ba da nga ci góob ba doy la waaye boo sabab lu baax danga ci góob ba doy la démb barke démb sëñ bi euh, di ma ko fàttali euh, mooy euh, sa way jur bu baax bi xalifa bi ma ne ko jàllo ma ne ma dee du jàllo de ma jàllo moom moom laa doon rek ci téléphone bi moo xam ne kii li ñuy dund mi ngi koy dund at bi li ci nekk yàlla xamal na ko mbóot bi yal yàlla fay ko ya rabbi mooy xalifa ñeseen di xalifa moom alaaj abdoulaye tey na yàlla fay ko ci la ne déedéet mu ne du jàllo de jàllo la de te at bii jàllo la jeexee fanweer ak ñett bu ñu lekkantee rek fanweer ak ñett dem fekk juróom muy fukk ak benn fukk ak benn doon huwa dem rushaanu bokkul huwa allahu ba hmm? mooy lii waxoon naa la mooy chiffreur yi ñooy xam li ah, ñuy jàng chiffre yal na yàlla dimbaleen yaa rab kon at boobu mooy datu julli di at bële atu chrétien yi la na julli di feree xam bii waaye dañ ñoo noote marginalisé ñu ba dootuñ dara bu korité dikkee feet bi ñaata fan la ah benn fan la ñuy may tabaski ñaata fan benn fan gàmmo ñaata fan dara wala amul dañuy ñaan ñu may la waaye euh, bu Pentecôte dikkee feet la Ascension bu dikkee feet la Toussaint feet la Pâques feet la Noël feet la ay fukki fan ba ay fukki fan ak ay jullit lañ yal na yàlla